dañoo fas yéene ànd ak waa Mbàkke yëpp fas jàppante ñëpp waaye li leer ba leer mooy incha allah bientôt du yàgg toog ak président Macky Sall dinaa ko wax ne ko waa Mbàkke yom ci yaakaar dañoo bëgg balaa ba 2024 lépp lu war a Mbàkke indi ko Mbàkke ndax ndam lii ndamal Mbàkke la dans sa globalité et sa diversité amaana def amaana def na la man waaye nag fii la yàlla wax ne fii la yemale parcours am ñun tamit dañu jël dañu jël témoin bi pour ab diir joxaat ko keneen kon ñu ngi waa Mbacke Diop wax naa ko waxati ko sama diggante Mbàkke do élection sama diggante waa Mbàkke cofeel la yéene la taxawaay la njariñ